kontaan nañ trop kontaan nañ trop si Bamba liñ ko bàyyi eh, ak accueillir liñ ko ak accueillir sax dañ ko xeeb parce que bëggoon nañ def lu ëpp loolu parce que monsieur le moo ñu ji loolu moo ñu ji trang ñun waa Médina parce que tey benn jeune wala benn kenn kenn daal taxawaaluwul ñëpp jël na leen di liggéey si mairie bi vraiment ñun dañu kontaan li ñu gën a bu ñu li ñuy gën a neex nag tey ji bu ñu sañoon ñu gëstu gis xalifa Sall la te xeex bi tamit jeexagul ni ko suñu maire waxee rek dañuy dem ba jeex parce que dañu bëgg xalifa génn kut kaa kut bu ñu gestoo gis xalifa xeex bi daal des na des na lu bëri sax parce que ñun daal ñu ngi si ginnaaw maire monsieur le maire Bamba Fall ñu ngi si ginnaaw xalifa Sall tamit di ko taxawu tamit bu baax a baax a baax parce que ñoom ñoo ñu won li tax ñun ñuy sonn suba ngoon. ba fu bëgg yam Bamba Fall amuñu fayam wax dëgg yàlla Bamba Fall ñun tey ji moo ñu def ay responsable. man xale bu ndaw laa dëkk Médina bëri naa si ay morom ñun ñëpp moo ñu def responsable ku ko ku ko xam ku ne xam ni moom wax dëgg yàlla nit la boo xamante ni du jay nit bañ na ko ba moom dafa tàng sax wax dëgg yàlla naqari deratam bi yëpp dëggu rek moo ko waral du jay kenn ñun ñi ñu ay jeunes lañ ba ma dalee nekk Médina ba tey maa ngi doog a xam lan mooy fonction wu maire maanaam mairie may gis lan mooy wàllu liggéeyu mairie mooy maanaam di gis jeunes yi di liggéey si mairie bi am na ay jamono jeune boo fi wax ni ko kaay ci liggéey bi danaa li politique la man du ma politique li ñuy def nag du politik dañuy liggéeyal suñu gox te Bamba Fall ku ko xool xam ni politique mayu ko li mu am liggéey dimbali jaam ni mi ngi si dëj yi mi ngi si ngénte yi mi ngi ci jàkka yi mi ngi ci mi ngi si inondation yi mi ngi ci lépp loo xamante ni luy dimbali askanam la ak jàppale Médina Bamba Fall mi ngi si xar kanamu Médina ku xool ni mu mel tey jii xam ni wax liggéey na liggéey boo xamante ni ah xanaa de ku bon mais ku baax te yàlla rek tax ngay wax te waxoo ndax politique ndax ñun du question affaire politique tay jii ni mag Sall lu mu fi def lu ñu bu ñu gisee lu mu def loo xam ne lu baax dañ koy wax daaw ñu wax dara si moom mais bi ñu gisee muy ñu leen di tëj ci leen tëj ñu naan ay lii politique laa du politique ci lañ commencé di xaw a critiquer yenn mais tey jii nii lépp loo xamante ni tey tey tey tey ci lu baax la luy jëmale Médina kanam Bamba Fall mi ngi si dëgg yàlla. création Bamba Fall bi ñu ko yégee amoon neen mbégte contentement ndax tey ji soo xoolee Bamba depuis ñetti weer moom ak ñi mu àndal euh, jàppoon ne leen tëj leen ci kaso bi ñëpp xamoon ci jàppoon ci jàpp bi leen jàppoon mooy maanaam jàppul bu du bu tegoon ci yenn charte maanaam dama ko bëgg a wax rek pour éclaircir choses yi ma ba nii may wax ak yow Bamba Fall dara dara dugalu ko ci kaso yi du dul ay idéem yu mu am conviction am engagement politique am bu mu am loolu rekk ko dugal ci xaalis ak for ak wane boppam gëm-gëmam ci Khalifa Sall loolu rek moo ko yóbbee lii nii yëpp mais du dara lu mu def lu ko war a mënoon def ci kaso mais nag yàlla ak mu yàlla bi am nguur lu olof Njaay di wax nee na nguur yëpp day jeex mais nguur yàlla rek a dul jëmm sa jeex yàlla moo àtte yàlla andiwaat na Bamba Fall te ku gis démb Bamba Fall li ko accueillir di nga xam ne Bamba Fall mooy chouchou Médina. ñun génn Bamba bi xëy na mbégte la mbégte la wax dëgg fa ne yàlla namoon nañ ko trop mais mbégte li comme moom kilifa gi ni mu ko waxee ret loolu la ñun ba léegi dañ jàpp ne ñun ay prisonniers lañ ndax xëy na on a gagné la mais pas la ñoo dese loo xam ne. dañ ko war a dem xeex ngir am ko muy génnum xalifa Sall moo tax daal mbégte la am nañ mbekte moom wax dëgg fa neexal am nañ mbégte trop trop trop ñun waa Médina ndax ki gis lu ku gis euh, démb li xew biir Médina non démb xool sedd na ndax boo xoolee tribunal ba mairie nit amul fu mu taxaw waaw sant sant yàlla daal sant yàlla. façon Bamba Fall fii léeg-léeg feu bi fii lay taxaw. bu circulation bi bougé day wàcc otoom dox nii nit ñi dañ koy mujjee sax sonal ba du mun dugg biroom kon loolu ku baax rek moo ko mën a am su baaxul woon su rombee fii duñu ko nuyu duñ ko sax xool mais saa yu rombee fii day wàccee veeram nuyu ñu tàllal loxo soo ko soxla woon tey tey tey tey yow bu la neexee léegi léegi léegi léegi nga soxla ko bu fi nekkee dalay lay amul problème yooyu wax dëgg yàlla amul problème yooyu il est sans façon waxuma ko ndax dama koy raayal kanam wala ginnaawam wala dara dama koy wax te yàlla tax nit ku baax la tey boo gisee bi ñu ko téyee fii commerçant yi ñu bari ku la ci wax ni la yéene na ko ko waxu lu am ñëpp dañoo mànkoo di ñaan di wàcce ay kaamil di def li jullit war a defal moroomam mooy lan dem masawu ko ñi mën a dem visiter dem nañ visiter ko ñu ko mënul ñu ngi toog seen barab di ñaan dëgg yàlla kontaan nañ torop nag torop torop si liñ ko gis kontaan nañ torop parce que namoon nañ ko torop. waa mbégte la si ñun mais comme suñu leader nu mu ko waxee. ci benn côté nee na bëgg na mais ci benn côté am na jàqare am na benn maanaam lu ma ko mën a tuddee trices trices mooy maanaam day dem na te bàyyi na fa magam bàyyi na fa nitam bàyyi na fa xaritam bàyyi na fa leader politique am muy xalifa Sall te incha allah dinañ taxawaay bépp taxaw luñ war a taxawee rek. dinañ ko taxaw pour génnee xalifa Sall te gëm naa ni taxawee bi ñu taxawee Bamba Fall bu ko raw Bamba Fall dina mëne combat bi moom ak maire yi mu àndal lépp moom ak coalition bi moom ak waa Sénégal pour ñu génnee xalifa fu mu nekk ndaxte xalifa quoi qu'on puisse mooy doon suñu mooy doon suñ tête de liste nationale allah.